xanaa naqar ak tiis rek ak coono ak jaaxle ndax xale yi li ñuy jooytu ne du ci ñoom dong Sénégal gi yëpp lañ koy kaasal kon tey jii fii dafa waroon a gën a fees nii sax Sénégal yi yëpp dañoo waroon a génn tey te xam ne Sénégal Sénégal rek a leen ñor sama doom nag mooy coordonnateur u SNP di Pape Ablaye Touré waaye moom may Guy Marius Sagna ñoom ak ñoom Malick ak xale yi ñu jàpp yëpp ñoom ñëpp. yalla na len yalla dimbali bañu bayi len ci jam ak salam ndax senegal rek a leen tax ñor. biñ ko tege ba léegi loxo ndax gis nga ko. wa gis naa ko tey jii sax gis naa ko ci suba bima fa joge ni ci la doog ñew fi fii mas waaye bi koy lat gis dama daj lu ne waye nak mom dama daj lu ne waye yalla sutural na ma bañu ñu mako bama gis sama dom ndax dafa febaron ba nek hôpital léegi nak buñ mako ko gisee nag ñu perfusionné ko waye yalla def na ci jàmm léegi ñu ci si jàmm tané na bu baax. alhamdulilahi rabil alamina li may ñaan rek mooy ñu bàyyi ñëpp ndax xale yi kaasuñu seeni droit personnel droit droit Sénégal bi yëpp lañuy kaas li ñuy kaas c'est pour la toute une nation léegi dama bëgg ñu bàyyi xale yi te xam ne xale yi Sénégal moo leen ñor ñu bàyyi xale yi ndax Sénégal moo leen ñor te li ñuy kaas nii duñu ay bandi duñu ay wayu ñu tux ñu naan jàng lañu xam ak teral seen i waajur ak a teral seen i waajur moo leen yóbbee ci lii yëpp wante nag maa ngi ñaan Macky Sall di ñaan gouvernement bi na bàyyi xale yi ñu génn te courant bii ñu nar a yokk nañu ci dellu gannaaw ndax sénégalais yi ñoo koy jooy ndax courant yi ñëpp a koy fay amul ko dul fay fii courant muy policier muy jaaykatu gerte muy jaaykatu marché muy jaaykatu taabal sax day fay courant ñëpp ay fay courant maa ngi ñaan yàlla. ñu bàyyi xale yi te wàññi courant bi courant bi moom nañ ko wàññi moom ndax xale yi loolu rek moo leen tax ñu nekk fii di marche